mu daldi de baadulo daldi yalwaan di dem te doom ja ñoo àndee xaaraan kër yam mu jaay ko sii gaawaan ak naari guy yëpp fab di laaxaan rilwaan ak dir kamb ak lu góor doon fa simbaaxaan yaa ngoog alaaji Seex na ko war suba ngoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu te di leen bu baax di leen jaajëfalit di am yaakaar bu baax ci ñu jëm ci bis bi nga xam ni euh, jullit bu ne rawatina taalibe bu ne am nga ci mbégte mu rëy te mooy màggalu Tuuba ñu am lool di leen dalal yéen ñi nga xam ne yéen jël seen jéego yu am solo yi ñëw ngir ñu fàttalante ndax fàttalante dina tax lu bari jariñu te ci fàttali rek ci la nit di jaar ba jariñu rawatina nag fàttaliku ci gaa yu baax yi rawatina fàttaliku ci ku mel ni borom Touba ak ñi mu àndaloon ak dëkk beeg ni mu ko sose ak barab yii nii dana tax yërmande yi sunu borom wàcc kon ñu ngi leen di delloo nuyu bu baax di leen sant nga laaj-laaj bu am solo te mooy fii ñu nekk te mooy daarul naan buñ ko tuddee xel yëpp dem ci Serigne Touba ndax wàccuwaay bu rëy bi mu ko joxoon ak xew-xew bu am solo boo xam ni amoon na fi euh, ci xew-xew yooyu buñ demee ba ci kanam ñu mën cee jàngate euh, ni dekkati yoote rek lu mën a xew nekk ci dëgg rek mooy li gën a wóor euh, sëriñ bi ni ko baaxawoon doon ko defee rek foo fépp foo xam ni barab la boo xam ni sàncoon na ko dana fa seet kenn ci ñi ko gënoon a mu dal leen fa kon boo tuddee daarul mannaan sunu xel yëpp day dem ci sunu maam ju baax ji a cheikh ibrahima faati ndaamal daaru muy maam cerno birahim nga xam ni boo tuddee daarul mannaan rek xel yëpp dana dem ci jox gi mu ko joxoon maam cerno daaru mannaan nag moom dafa bokk ci histoire sëñ bi ndax sëriñ bi bi mu nekkee ci géej gi ci atam yu mujj la bind lettre maam Thierno digal ko mu sanc foofu te tuddee ko Daaru Minaan man yaakaar naa photocopie lettre boobu yor naa ko mu ngi bi sëñ Tuubaa bind maam Thierno di ko digal mu sanc ko te tuddee ko Daaru Minaan li tax ma ne dafa bokk ci histoire sëñ bi tamit ak histoire yoon bi mooy sëriñ bi bi mu jugee ci géej gi fu mu jaar gan la fa woon ba ci Daaru Salaam ndax da di ñaan ganale ak maam si ànd ga ah? fi mu dellusiwaat mooy daaru ma naan di këram bi mu ñëwee daaru ma naan mboolem la bagage yam jigoon ci géej gi da ko faa indi mel na ni kon daarul man naan boo ko bëggoon a wax mooy barab la boo xam ne dafa nekk ci biir Touba di foo xam ne bokk na ci maanaam fi sëriñ bi fonkoon lool ndax ay jaar-jaar yu re réy réy am na ci am na fi xew-xew bu rëy ndax ci sama biir yi wax naa sëriñ bi moom barab bu mu doon sañci eh, day mel ni la ko tax a jóg mooy barab bu ñuy jaamoo yàlla ba pare nekk barab bu ñuy liggéey kon ay tool ak jaamu yàlla moo taxoon mu mu ko eh, xam nañ nit maam Cerno bi sëriñ bi dem ci géej gi maanaam fii la ko bàyyi woon fii la ko bàyyi woon muy daarul marnaan ginnaaw kan sanc yeneen dokkee top waaye fii la ko bàyyi woon nga xam ni daarul marnaan kon dafay mel ni am na histoire bu rëy rëy boo xam ni ci diggante sunu maam jooju di maam Thierno ak Cheikhul Khadim euh, am na ci sax mënuñu ci anticiper waaye wax rek euh, ginnaaw bi nga xamee ni sëriñ bi jóge na ci géej gi ñibbisi ba ñëw doon dox doxam yu am solo yooyu jaar fu mu jaar jaar sànnoo si noonu nga ko waxee jaar ci dëkk yooyu ba ñëw tuubaa ba dem Daaru Salaam ba ñëw Daaru Alimil Xabir ñëw na fi seet si fi maam Thierno ci kër gi kër gi ñu wax kër gu Daaru Marnaan gi xam ni kër googu kër gu yéeme la goo xam ni danañ ci dugg waaye ci biir loolu rek ci histoire bu am solo wax nañ ni sëñ bi bi mu gisee borom daaru ci kër gii ci Daaru Marnaan euh, maanaam bagage yu mu ko dénkoon bi muy dem kon mel na ni fi ko bàyyi jox ko ay bagage yoo xam ni bàyyi woon na ko dénk ko bi muy waxtaan ak moom di ko génne ci bagage yi di ko jox wax nañ am na ci baraada boo xam ni sëriñ bi. bi ko maam Thierno doo ko ci doon defal attaaya wala café waaye lu ci am daal lu lum ko doon liggéeyal ci baraada bi la far léegi yàlla dogal woote bi jóg maanaam mu war a dem mu ni fa bàyyi mu ko fa bàyyi fa loola wax na ni maam ci dencam googu denc na baraada boobu ak la ci nekkoon dara soppeekoo bokk na ci keroog du mu génnaar woon ko sëñ Touba ci daarul man naan sëñ bi xamal ko ni ko lii de su demoon maanaam maanaam su ma su ma la soo ma su ma su ma ko dénk ni ma la ko dénk ni dara yàqu ci ndax su doon mën dinaa ko ni ma ne maanaam ngir ngir tagg tagg foofu maam Thierno tagg gu am solo jataay boobu mooy jataay bi mu jógee eh, comme Daaru Salaam dañu to mooy bi jógee Daaru Salaam rek jaar Daaru Alimil Xabiir ñëw Daarul Marnaan waaw loolu moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy cosaanul kon ñu xam ni kon sëriñ bi de mel na ni bi muy dem bàyyi na ko fii bi mu ñëwet gisewaat naa ak moom fii waaw gisewaat naa fii ndax njëkk naa gise ndax eh, sëñ bi gisee naa ak maam avant mu yegg si fi moom maanaam egg ndax loolu mooy li ñuy màggal di mooy ni su waaye gise boo xam ne bi ñu àndee nag ba ci ngeen ba ñu ubbi ci kër gi nag du ko visite moom bagage yi moom wan na ko ci bagage yu baree bari bari yu mu denc fekk na nag woote woolu woon na ko ba mu ñëwee ba wàcc ndar yónnee woon na woolu ko ñëw moom moom moom moom Thierno te boobu mu jógee ca dëkkam ba dem dem dem dem fekki ko ndar ba mu demee wax nañ joxante nañ loxo lu yàgg sax mënuñoo wax ci la ko ci la ko Sëñ ko tuddal suñu borom man maa la waxoon ni dinaa dem dinaa ñëwaat diggante boo xam ne daal diggante bu bu bu bu bu bu la woon boo xam ni ci bagage yu ko dénkoon waaw loolu nag kon da nga ciy jàng ni daaru man naan fu sëñ bi fonkoon la waaw am na fi nag xew-xew yu fi am yoo xam ni yu waaw. ci histoire booy xool mel ne Jasawu Sapour. da ngay dégg fu bari foo xam ne si Moussa Ka dina tudd. daaru man naan keroog nangam ba fa tubaab yi yëpp ci waaw maanaam moom bi mu bi mu jógee ci géej gi ni ma ko waxee ba ñëw Daaru Salaam ñëw Daaru Ali ba ñëw Daaru man naan dafa mel ni sëñ bi dafa faa bëggoon a toog kon fu mu bëggoon la maanaam loolu mooy état bu bëggum bëggoon ci maam Thierno borom Daaru ak bagage yi mu ko dénkoon ak waxtaanoo yëpp mel na ni sëñ bi kon bëggoon na fee toog moom. mooy yéene mu toogoon daaru man ci diggante boobu nag mooy xew-xew yooyu ngay wax li ko sabab euh, ci la borom daaru moom demoon doon ko wutali bagage yu bees yu ñu war a mën a def ci kër gi doon ko wutali ndar maanaam bagage yoo xam ni dañ ciy war andi ay lal yooyu wax nañ ni nag bi ñuy ñëw ba maanaam jël bagage yi di ñëw ci lañ am ñu maanaam ci ñoo xam ne mën nañ suturaal euh, seeni tur ndax fi jamono tollu léegi ndax loola xewoon na ma waaye léegi ñu bari danañ xam <laughs> jëfin wa waaye foofu daal liñ ci xam daal li leen boo li boolee waat mu war a ñëw war koo song si la sabab loo mooy bagage yooyu mu ko doon wutloo ci biir bagage yooyu la yi doon làmp tànk yi jàpp ni ay fital la ci lañ dem nag waxaat tubaab bi ni ko sëriñ bi kat ma ngay pour beneen contre attaque jihaad ndax li nga ko defoon da koo metti mooy yóbbu ko yóbbu woon metti ba mi ngi wutloo ay maanaam maam Thierno ay ay armes yoo xam ne ngir war a mën a ñëw maanaam songu si la bagage yooyu nag bi ko indee nag daaru man naan ci la nag tubaab bi nag woote war a wax nag ñu ñëw wisit si kër gi maanaam ngir loolu comme yëg na ko te maanaam xamul xew ndeke sëñ moom ay ay ay ay gaal yu barkeelu la fa nefoon macha allah téere yi mu doon bind alxuraanul karim ji màggal suñ borom bagage yi yoroon yëpp moom la dencoon ci kër gi ngay dégg muy këru daaru man bi mu defee noonu moom ku baax ki ci la tubaab bi yónnee pour ñu ñëw visite ko waaye bi ñuy dajee nag war a waxtaan dafa fekk buur siin jamono yooyu boobu moom jaxasoo na ñoom boobu ci ñoom la bokk fa la seedeelee sëñ tubaa sax moom te gis ko moom moom seedeel na foofu waaw moom moom li ñuy wax sax du du ci dafa dafa su buur si bi muy seedeel sëñ Tuubaa gisagu ko waaw moom waaye ndax fañ ko doon waxee di ko waajal fa leen nii may leen moom ñu wax ko mu ni leen. ki ngeen di tuumaal te bëgg koo dem visiter wala ngeen bëgg a dem di ko songi maa ngi leen di xamal ni yéen dañu mel ni ngeen a jëm penku moom mu jëm soow jotewu leen dara loolu wax na ko moom wax na ko tubaab wax waaw waaw ñu ne ko yow loo ci loo ci loolu loolu loo ci nar a teg mu ne moom bu bu fekkee li ngeen koy tuumaal am na ma sama mbubu mànt delloo leen ko te boobu egseegul sëñ Tuubaa waaye ngir yeewute gum xam seeni pexe ak seen nuñ mel ci la yolli ko moom war fasam wi pour ñëw comme dañuy visite kër gi te mën nañ fee dugal ar mu ci biir wala ñu dugal fi leneen mu ñëw teel a signalé loolu teel koo wax bi mu ñëwee nag aw fasam daaru daaru man na fii ci kër gi kër gu mag ci daaru man naan fekk fi ku baax ki bi ñu nuyoo ba noppi mu xamal ko ni ko tubaab yi kat dañ fee bëgg a ñëw te lii leen tax a jóg tuuma ji leen tax a jóg te man dama wax foofa ni leen yow yaa ngi jëm penk ñoom ñu jëm soow loolu neex sëñ bi lool mooy li mu ko seedeel loolu ba mu ko seedeele lool ni ko nag dañ fi mën nañ fee ñëw te mën nañ fee def lu ñuy wax ay arme te bëgguñu loolu mën a nekk ci la ko sëriñ bi ñaanale ba muy dellu waaye loolu yéem ko mu waat ko ni ko loo jublu ci li nga doon seede ak loo ci bëgg waaw ndax seedeel ba nar laa sumiloo sa manto te xamoo ma loo jublu mu ne ko damaa xam ni bis ba ñuy wax yow mal xiyaam dana ñëw te loolu bisu bis bis mooy bisu dëgg ma te xam naa ne man buur seen awma fa dara waaw bëgg naa nag bu ëllëgee bu ëllëgee ci seede sii ma la seedeel noonu sàmm di def la la koy topp nga def ma ko mooy xam naa ni bis boobu am nga fa dara di fa am dara ju juree ma bëgg nag bu ngeen bu sa njaboot xéwloo ba noppi ñu may ma ca des ya ndax ndax ndax ndax ndax ndax munta ñàkk te bis boobu day ñëw ca la ko Sëñ Tuubaa waxee nag ni ko duma la boole ci ñooña sax dinaa la boole ca darajee ña doon ci seede yi nga ma defoon suxa daaw yi keroog bu suñ am na loolu ci kanamu Sëñ Tuubaa ci seede googu mu ko seede waaw bi mu demee nag muy histoire bu am solo ndax bi mu demee ci tubaab bi ñoom ñu wàcc war a ñëw ñëw kaanu wu raglu xasida yi sëñ bi jëlee ci géej gi yëpp sëñ bi ma nga no daar mu naan waaye am na xew-xew bu doon bëgg a am ci daar ma naan mel na ne sëñ bi xam na ko ci baatin ndax nam jëfee moo tax gaal yooyu yëpp sëñ bi defoon def ko ci xasit yi sëñ bi daa gas am yeer ba mu xóot ñu ne nañ ko suul gaal yooyu muy gaal yi def xasit yi bañ ko defee ba noppi ay fan kër ga jommi mooy kër ga lakk nga xam ne sëñ bi daa wax ne buñ génn dara la ca ne woon kër gi lépp lakk ba jeex kon day mel ne sëñ bi protéger xaside yi moo taxoon mu gal mu gaslu ak ak gaal denc ko fa waaye bu dee xaside yi nga xam ne moom euh, te njëlbéenu sax zul qaada njëlbéenu weeru tabaski la sëñ bi jóge daar saam ñëw euh, daar mu naan ci di ko Cheikh Mahamadou Dagana waxee waaye ci xew xew mbaaxaan boobu la sëñ bi indee woon xasida gum tënkee rahmaanu rahim ci la sëriñ Touba bindee xasida googu nga tudd te mooy arrahmaanu rahim woo ab naar bu ñu xamoon ci wetam ku baax Abdullah jox ko ko ni ko yow bu bis baa bu ñëwee di war a wisit si këru daaru mën naan gi war a ñëw di dugg ci biir kër gi yow moom del jàng rek di wër kër gi. waaye ci xew-xewu mbaaxaan boobu la sëñ bi indee woon xasida gum tënkee rahmaanu rahim muy ñaari turu yàlla yooyu rabbi bi maayetul azhaan xat faja bi jaahi afdali man lillahi xat la jaa xam ne sëriñ bi daa am ku ñu wax Mouhamad Touba ab naaru ganaar la moom la sëriñ bi wowoon ne ko euh, bu mbaaxaan ñëwee ba arme bi yëpp ñëw na ko jàng ca kaw mel ne koy nodd jàmm rek mooy xaw ñu jàng xasida ga noone muy xasida gu doy waar waaw rabbi may san xat fajaa ci daan waxee yaa malikal mulki yaa man jàlla xan xawadin irham jamihil wara yaa hadiyan radaya sëñ tubaa bu defutoon xasida gi tuddee ko rahmaanu rahim su ko defutoon maanaam armée ba doon ñëw daaru mu naan suñ borom dañ leen def na mu nag ñoroon doon màbbi kaaba ga waaye sëñ bi ci yërmandeem moo tax mu def xasida gi ngir ñooñe benn lor bañ leen fekk moo tax waaw duñ loro moo tax sax ñi fekk woon daaru mu naan ñi ci bari ginnaaw go tuub nañ mbaaxaan moom dafa mujj toog dafa mujj tuub ngir yërmaane gi nekk ci xasida gi kon loolu moom wér na ne sëñ bi fa la ko defaree ba ca topp ndax sëñ bi xam nga ci zol xaada la ñëw daaru naan diggu tabaski tabaski tamxarit safara gàmm ak sasin 1321 sëñ bi daaru naan la ko defee waaw gàmm googu sëñ bi tënkee la ko xasiida ak yowmal mawlidi xaama ak sasin mooy xasiida gi njëkk ci xasiida yi gàmm yi ginnaaw bi sëñ bi jugee ci tukki bi nga xam ne sëñ bi dafa changé nam daan gàmmoo bi mu jugee ci tukki bi ndax lu njëkk muy dem ci tukki bi xas at mu jot mu defar ak xasida gàmm ko mu indi raaya mu indi euh, jazbu mu indi xasida yu bare bare fattul fataa yooyu yëpp gàmm la waaw bi sëñ bi ñëwee nag daaru naan nag ci yow ci gàmmook ak sasin nag la sëñ bi tàmbalee defar ay xasida yu muy tënkee mu yowmul mawlidi wala yu muy tënkee weeru gàmm xasida ga ci njëkk mooy yowmul mawlidi xam ak sin sëñ bi defee ko ci daaru naan bayru ci njëkk sëñ bi naan yaqiini ilal jannaati maa laysa yaxmadu wala yuxmadu rasulun karimun bayt sar ahmadu yaqiini ilal jannaati maa laysa yuxmadu rasulun karimun bayt ahmadu gàmm googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa ñëw ci néeg bi sëñ baa nekkoon mu nekk faak moom guddi gàmm gi yëpp ba set loolu mooy yaqiini ilal janaati maa laysa yahmadu rasulun karimun baytana saara ahmadu kon lii ay xew-xew la yoo xam ni xewe na daaru mën naan te gis na ko fa fii nga toll mooy fi nga xam ne ku fi musaa toll loo ñaan suñ borom defal la ko ndax liggéey nga ba ñëw te tooñoo kenn ñëw maanaam it ñu war laa song si mooy yegg nga ci maanaam dayob loo ñaan suñu borom def ko fii nga toll yow daal yaay xool waaye loo ñaan rek suñu borom daan la ko defal foofu nag fa la waxee ni irham jamihal wara waaw fa ñaanee ni kon yàlla suñ borom yow yàlla nga yërëm xeetu yonante bi alayhi salaatu wasallam yëpp loolu mooy daal ci gàttal mooy daarul marnaan ak histoire bi fi am la ma wax nag ni nga jàng ci dëgg kon mooy li nga ci jàngee mooy buur siin tey bu demee ba macha allah ba fii ñuy wax màggal ga mu am ci Fatick tam réy lool ci dëkkam kon waxuma sax ëllëg waaye tàmbali naa gis moom te demagul fenn ndax ñu ngi ko doon tuddoon jamono yi ci borom manto ñu bëree bëri ku ci am dara ji jooju amu ci te seede jooju maye na ko fii la xewee ci daaru maanaam macha allah dafa mel ni maam Thierno it ginnaaw bi dëgal nañ fi ku ñu wax sëñ Abdourahman mu bokk ci njabootam mooy ki ko ki ko ki ko tooloon ñoo ngi déggoon fi fetto ñu fi daan bay daan nañ fi bay yëpp moom mu mu mu mu bàyyi ko fi ku ñu wax sëriñ mbakke Daba saar yal na suñu borom yokk ko lool te may ko wér moo ko fi taxawal fii ci Daaru Marnaan mooy ñaan rek sunu borom subhaanahu wa taala yàggal fi sëriñ Muntaxa al Basiir ci yéene ji mu am ci dëkk bi ci liggéey ci xam-xam ci ning nga ko waxee léegi ci gën koo yaatal ba ñëpp di ci sof ci liggéeyam di ñaanalit njabootu maam Thierno Birahim noonu goo ko waxee ñoom ñëpp. yàlla na nu suñu borom defal màggal gu nu nangu. maa gi nga xam ne moo jub si te lépp ni ñu koy waxee xewe woon fii ndax fi la tàggoo bi amee woon sëñ bet bi mu ñëwee fii la bëggoon a sañcaat ki noonu ñu ko wax toog fi kon loolu yëpp daje dajee yàlla nañ ci daje dajee ngërëmal sëñ Tuubaa di leen sant di leen gërëm waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa a safar